Ndiogou Diène maa ngi lay nuyu. waa Ndeye Comba maa ngi lay fay. Ndiogou jën nga ne coordonnateur national du collectif des chargés de cours 5 octobre bi si la ñuy màggal bés bu ñu jagleel enseignants yi lan nga ñu si mën a wax exactement. waaw waaw Ndeye Comba uh, ñu ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi. nga may ñu ñu nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ci Rewmi FM. waaye ñuy souhaiter bonne rentrée képp kuy jàngalekat waa baax na loolu nag lu rafet la lu baax la jël benn bis jagleel ko jàngalekat yi yaakaar naa ni jàng ak jàngale ci am réew ku bëgg a wax développement mënoo ko ci génne kon nag ut benn bis boo xamante ni da nga koo jagleel ay jàngalekat yaakaar naa ne lu rafet la te lu war la Mhm. yéen naka ngeen koy màggale enseignants yi jàngalekat yi. waaw waaw ñun ñu koy màggal ñu koy màggal ñenn ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ranger seen i seen i seen i cahier seen i mhm. mhm. ñi. ndax euh, dañuy quitter fu sore pour dem seen i bërëb ñenn ñu ngi takk seen i di waaj pour dem. fi ñu toll nii nag ñuy wax euh, difficulté yi surtout jafe-jafe yi nga xam ne jàngalekat yi dañ koy faral di jànkonteel déjà boo ñu doon wax yéen chargé des cours lan mooy seen i jafe-jafe yoo xam ni vraiment yéen a ngi koy jànkonteel si liggéey bi te bëggoon ngeen état bi taxaw si. waaw boo gisee chargé de cours. mooy jàngalekat bi nga xamante ni dañ ko tàggatoon pour yóbbu ko ci daaray la lal yi mooy élémentaire bi gannaaw bi état bi am jafe-jafe am euh, daaray diggu doom yi mooy lycée ak collège am ñu fa manqué mhm. mu ni jàngalekat yooyu mu tàggatoon am na ci ñoo xamante ne am nañu ay diplôme yu leen may ñu dem ca école euh, diggu doom ba mooy lycée ak collège di fa liggéey mhm. Mhm. wante boobu man dama leen di tàggat buñ fa defee ñaar wala ñetti at dama leen di tàggat ñu am seen lijaasa am seen diplôme nekk ay professeur waaye nag boobu ba léegi tamit état bi yenn saa bi ci yooyu waa mu yàbbi ci da leen di bàyyi foofu yenn saa ñu def fa fukki at nekk ay instructeur waaye du def liggéey professeur te kenn du leen tàggat kenn du leen formé loolu jafe-jafe la. Hmm. am na yeneen jafe-jafe nag ci njàng bi lu ko mel ni li ñuy wax lenteur administrative. nga war a jox benn këyit ndax tey jii ñu nekk ci vingt-et-unième nga a benn këyit ñu naan la signé guñ ko. loolu mooy lenteur administrative état bi tamit bu mënee góorgóorlu ci loolu dina am solo. Mm. Euh, ñu continuer ci jafe-jafe ndax buñ nee chargé de cours yi. seeni jafe-jafe formation tàggat am na ci waaye li ñuy wax IRD mooy benn ndàmpaay bu ñu leen di war a jox ñu koy généraliser képp kuñ jëlee ci chargé de cours rek. ñu jox la ko bañ di la laaj ay kayit dina toog la ab diir pour jox la ko. d' accord donc jafe-jafe yooyu kese ngeen am yéen. waa chargé de cours yi jafe-jafe yooyu bokk na ci yooyu formation ak généralisation IRD bi. Hmm. waaye nag bëgguñ di waxal rek chargé de cours yi dañuy bëgg di waxal jàngalekat yëpp en général. d' une hmm. manière générale ndax tey waa d' une manière ndax tey bu ñu xoolee njàng mi jàngale mi junjum kat ñoo bëgg formation. Hmm. am na ñu bëgg formation également ñu ngi wax ci wàccu les décisionnaires mu nekk question boo xamante ni bu tiis la ndax ñu nekk ay jàngalekat yoo xamante ni nekkuñu ay fonctionnaire waaye liggéeykat comme jàngalekat la ñuy def ñu defee retraite daanaka seen pension du leen may ñu dund dund giñ bëgg tam na yaakaar naa ne loolu nekkul sax ci am réew nit jàng jàngale fa ba dem retraite daanaka loro Euh, semaine prochaine la élèves yi war a commencer ñëw ci classe yi est-ce que lépp yemb na est-ce que euh, condition yëpp baax na pour ñu mën a démarrer cours yi nu mu gën a gaay comme sax nañ koy waxee léegi ubbi tey jàng tey. waaw baax na loolu moom bàkk bu baax la ubbi tey jàng tey ndax école moom tijji ko te njàng ma commencé ko daanaka nekkul tijji mm-hmm. loolu moom bàkk bu baax la waaye nag dañ ci war di boole jëfin bi jëfin gi mooy balaa école tijji nga fexe bërëb yëpp bu ñuy jàngee Sénégal nga faxe la fa war a nekk nekk fa tey xam nañ ni ci nawet lañ ne am na dëkk yoo xam ne boo ci demee dañuy bay am na dëkk yoo xamante ne abri provisoire la ba tey ci suba Tivaouane bii ma nekk dafa taw tey jii bu tawee abri provisoire mënoo cee jàngale kon nag état baax na muy wax tijji tey jàng tey waaye war naa jumtukaay yëpp nga xamante ni école bu mu mën a nekk ci Sénégal da ngay taw du la sonal ñax du la sonal dara du la sonal ba boo tijjee. Mm. day buntu rek njàng ma commencé. Mm. abri provisoire yi nag loo si mën a wax ñu ngi dégg sax président Diomaye keroog ci conseil de ministre bi mu ngi euh, joxe ay directives pour ñu xeex wala taxawal loo xam ne daal dinañu fi jëlee abri provisoire yi naka nga ko gisee ci 2024 Sénégal ba léegi am ñoo xam ni ci ay abri provisoire lañuy ñuy jàngee su tawee ñu am problème su ngelawee ñu am problème na ko gisee. waaw ndax li ci njëkk mooy waruñu nangu ñu nekk ci am réew. ñu ñëpp ñu bokk réew mi boo demee ci réewu taaxi ñu ma ko mën a waxe ñu nga fekk fa ay ay tabax yu yong pour école boo demee feneen si ñu naan la abri provisoire loolu rek inéquité lay indi wala dafay dafay indi nga ñu yëkkati ñu wàcc ñële donc président mu ngi koy wax waaye nag na jël ay jumtuwaayam nga xamante ni képp fu école war a ne ñu war faa tabax tabax yu yellu yellook ñooñ nga xamante ni balaa yàgg ñu def ci la ci war ut ay ay ay prometteur yu yu mucc ay def ko appel d'offre mais également di ci veille bu baax a baax a baax nga xamante ni foo tabax da nga fay tabax lu baax doo fa tabax ñetti at tabax ba du baaxati loolu bu ko defee mu ut moyens yu doy def ci xaalis ndax dañuy wax ni jàng moom njàng mu bon moo cher waaye njàng bu baax amul biir d' accord euh, bu ñu jógee ci affaire abri provisoire aussi souvent dañuy dégg ngeen di wax euh, déficit d' enseignant maanaam jàngalekat yi doyul euh, loolu loo ci mën a wax état bi Ndiogou. waaw loolu moom dama yaakaar ni wax ko wax ko wax wax ko mooy géej gi géej gi am na ndox. Mhm. ndax mënuloo am ay étudiants. am ñoo xamante ne dañoo taxaw pour bëgg a jàngale. li la war mooy nga tijji ay concours. lu mel ni CREM. mooy concours recrutement des enseignants des des élèves maîtres. nga tijji école ma fas fi nga xamante ni ay professeur lay formé bu ko defee balaa boobu da ngay recenser ñaata enseignant nga soxla nga jël ko ci concours yooyu euh, ah, euh, lépp lépp lépp ñëw mënoo am ñu bëgg liggéey nga am ay école yuy formé ay jàngalekat nga naan au oh, jàngalekat yu doy loolu dama yaakaar ne tappale la la. d'accord euh, aussi euh, dañuy euh, wax ni léegi njàng mi niveau bi dafa baissé bu baax a baax muy niveau élèves yi muy niveau jàngalekat yi ci boppam loolu si mën a wax ak lan moo koy expliqué exactement Ndiogou. waaw man nag bokkuma ci ñi nga xamante ne buñ ne njàng mi dafa sooxe rek ma ma ma joxoñ baaraam kenn damay wax ni mbir la moo xam ne mu ñëpp dañ ci am responsabilité. état nan la ci amee responsabilité moom mooy moom mooy nday nday nday nday mi état bu demee ba ay jàngalekat di former collectif mbootaay naan ko former ma ndax xam nañ ni ku ñu formé wul loo ñu xarañ dina am lu la manqué mooy benn mm-hmm. man jàngalekat bi est-ce que maa ngi toog di jàng bu baax ndax dañoo wax ne pour nga jàng da ngay ngiiju ci ñi nga jàngale mooy da ngay il faut apprendre ko pour enseigner peu est-ce que maa ngi koy def parents d'élèves est que moom ca kër ga buñ bindalee élève leçon dina fexe mu jàng ko ndax tey boo duggee suñ kër yi néeg ne am na ten ñun ba ñuy jàng suñ kër yi dafa amoon tableau ban kër tey ji moo fi am tableau ban parent d'élève mooy xool doomam ndax jàng na leçon ban parent d'élève mooy xool heure tëdd mu ni doomam damay tëdd da ngay jàng léegi boo ñëwee ci élève bi foo ko fekk mu ngi yor portable portable bi am na foo xam bu fa duggee rek li mu bëgg a jàng mën na ko jàng waaye est-ce ci foofu lay dugg. Hmm. day passé tout son temps yor portable am di seetaan loo xamante ne amul benn njariñ perte temps la. kon nag loolu lépp boo ko boole wax dëgg yàlla njàngale dana sooxe yaakaar naa ni question bu am solo nga posé te mm-hmm. état war naa def lépp loo xamante ni day fexe suñu niveau élève yi ñëw ndax tey jii dañu nekk ci mondialisation bis boo formé élève bu baaxul mm-hmm. bu demee bitim réew da lay gàcceel waaye ci biir réew mi da ngay am gàllankoor pour yenn domaines yi mm-hmm. euh, dernière question Ndiogou Diène en tant que chargé des cours tey jii yéen ban appel ngeen di lancer président Diomaye waa président Diomaye ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy ñaanal bon réew mi jikko mu jig réew mi également waaye buñ fàtte ni dafa dafa wax jub jubal jubanti te jub jubal jubanti dafa nekk bàkk bu rëy boo xamante ni buñ ko matérialiser réew mi mën na cee développé bokk na ci li mu war a jubbante mooy former chargé de cours yi mooy former képp ko bëgg formation ndax mënoo jël nit muy def liggéey boo xamante ni bu mucc ayib la nga war koo tàggat pour mu avancer nga lànk bañ koo tàggat bi ci des mu fexe lépp luy lenteur administrative mu fexe ba dindi ko ci système bi. Hmm. ndax vingt et unième siècle lañ nekk waratuñoo toog nit toog Ndakaaru nit toog ko ñu naan la signé ñëwuñ te acte d'intégration. bi ci topp mooy mu def le tout booy loo xamante ni war na ko def ci école bu mu xaar grève di ci am pour mu def ko na fexe lépp ni ko ministre bii di defee ñu ngi koy ñaan mu continuer ci loolu di ci ay guntam di waxtaan ak jàngalekat yi. moo xam vacance la moo xam année scolaire la jàngalekat yi bu lépp lu muy def mu boole leen ci laaj seen xalaat nii mu ko commencé yaakaar naa ne buñ ko defee mën nañoo am école ba mucc ay hmm. Ndiogou Diène maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tont bi nga tont suñuy laaj. waaw ndey ndey ndey Kumba ñu ngi lay remercier di remercier également képp ko ñuy dégg ci Rewmi FM. Hmm. di wax ni rek saa su ne bu ñu Rewmi FM waxee ni dañoo bëgg laaj dañ ci sawar ndax euh, wax dëgg yàlla yéen ngi def liggéey bu mucc ajab ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal képp ku ñu déglu yàlla ñu yàlla defal jàmm. Hmm. Ndiogou jën maa ngi fàttali ni yow yaay coordonnateur national du collectif des chargés de cours jërëjëf.